أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن bismillah si lu ñuy jëf ak lu ñu bëgg a jëf bu ñuy lekk dañ naan bismillah yonent bi salaa salaam sooy lekk neel bismillah soo ko fàttee ba mu yàgg nel bismillah awaluhu wa axiruhu bismillah yi ci tàmbali bismillah ci mujj ñam woowo soo amoon poson tax te yow xamoo ko poson bu du la ndax bismillah la kenn xamul nu mu toll arrahmani moom mooy ki nga xam ne c'est le gouverneur de l'univers bi ko gouverner rahim da ko gunge rek dafa ko dafa ko ci dara ci loolu waaye ku lep nyep moo leen di dundal ñëpp yoonam newul ci ku ama ku ku ay imaan ak yooyu yëpp ñëpp lay jox rek mu jeex arrahimi nag moom nag ku bon doo jàll ëllëg yomal xiyam mooy gouverneur foofu moom bon du fa jàll amul jàll foofu ci gàttal kon nag auzu billahi min alsheytan arrajim bismillahi rahmani rahim يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ya ayyuhal lazina amanu yéen ñu wax ni gëm aw matal bil uqud si pas-pas pas-pas manam pas-pas manam il faut respecter espéculeusement vos engagements bat bi bat mata fonk la yaa ayyuhal lazina amanu yen ñi bil uqud pas-pas bi al muakkida baynakum wa baynallaahi wa bayna naas maanaam pas-pas bi nga fasante seen biir ngeen waxante ba d'accord ci bi nga xam ne moo dox sa diggante ak yàlla bi nga xam ne moo dox sa diggante ak nit ñi muy daal kóllëre nit day am kàddu ca kanam dana ko wax dana ko ne leeral lu bari ci baat bi bu fekkee dañu taxaw ci baat bi si bi daf fi yàgg dañ fi yàgg wante dal baat bi jullit bu xisee ba joxe kàddoom rek war na ca taxaw dëgg-dëgg taxaw suñ boroom tabaaraka wa taala nee na lakkum lakum baaximatul ami ilaa ma yutla aleykum xayra muhiili saydi wa antum hurum waaw uxulat daganal nañu lakum ñeel leen euh, maanaam xar yeeg nag yi nga xam ne dañu leen destiné pour ñu dem ca Kaaba ga ñu rey leen yàlla daganal na ko ci yéen uhilat lakum baahimatul an'ami illaa lu dul maa yutlaa aleykum lu dul la nga xam ne day leen ko jàngal xayra muhilli seydi la nga xam ne dana ko tere ca kanam lee ngeen gis ko wantum hurum jamono bi ngeen armalee boo armalee dafa am loo xamee li dala koy tere ba sa armal jeex dana ci ñëw léegi te la mu la daganal am na yu mu nangu am na yu mu nangul lépp dana ko leeral na allaha naka yàlla yaxkumu dana atte maa yurid lu ko soob yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñu wax ni gëm ngeen yàlla laa tuhilu shaa'irallaahi bu bu leen yàq yi yàlla màndargaal mu baax ba pare shaa'irallaahi wala sahral haram du càggi nitam weer yi nga xam ne yàlla mu di ñeenti weer dana ko wane yu nga xam ne waru leen cee def lu mooy yàlla wala al ak itam hadiya bi nga xam ne mooy nag yaag xar yaag gëléem yaag ah, yooyu jëm ca kaaba ga bu leen leen bu leen leen lor bu leen leen yàq wala al da ak dafa am lu ñu say takk muy comme ay signe distinctif seen yoo xam ne buñ ko ci defee ñu xam ne yii bett day pour yóbbu màkk la pour rey yooyu nag bu ca kenn dugal dara mbaa nga koy dindi te am nooy sàcc ak jaar ay mbir yëpp dana ko leeral nag wala aminal baytal haram ak ñi nga xam ne ñoom seen bopp dañoo wóolu màkk mu nekk lieu de rassemblement ñu war faa dem yabtaguuna ñuy sàkku fadalan fadalan eh, xéewal min rabbihim seen borom waridwaanan ak ngërëmu yàlla ñooño bu leen leen kar di yàq seeni biir wa isa wa isa su fekkente nag pare ngeen ci seeni armaal yooyu ngeen armaaloon fastaadoo man ngeen la leen xaraamaloon loola dagan na leen fastaadoo man ngeen rëbb ak yi demee noonu waaye rëbb bi nag dina leeral yan ngay rëbb bu dee ci biir géej gi dafay dagan nga jël fa dara waaye ci biti am na loo xam du ko laal lépp saar bi da ko leeral xaalaaw taala suñu boroom tabaaraka wa taala nee na wala yajëri man na kum man na kum bu mu leen yàqal nag sanaanu xawmin aw ñi nga xam ne maanaam fii bul jàpp xeen ndax avant dañu bëggoon ñëw dugg ci kaaba gi ñu laan indi ay problème ca xudday bi yàgg yi nag comme nag léegi ubbi ngeen màkk ñëw léegi nag walla wala yajrimannakum sanaanu xawmin bu leen jàpp xeen ak yooyu an sa saddukum anil masjidil haram concernant ñi nga xam ne dañu leen doon interdit ngeen ñëw ci moske bi tey bi ngeen jekkoo baal leen leen waaye bu bu leen fi nekk di vancé woo ci kenn xamul ndax benn peuple bële ñële déconné woon nañu tax ngeen bëgg jël seen naqar andi ko si ñii déedéet te loolu ba tey day am bañ benn xeet rek jël ñëpp jaxase leen ne benn baaxu ca du dëgg kat wala yajrimannakum sanaanu qawmin an saddukum anil masjidil haram an taxtadu ba ngeen jalgati yoon bu leen jalgati yoon de na ñëpp a yem ñëpp yemuñu bii groupe ñooyam yem nangam déedéet yamuñu wa taawanu alal birri dee leen dimbalante ci lu baax wa taqwa ak ragal yàlla ragal yàlla wala taawanu bu leen dimbalante alal ismi ci bàkkaar wal udwaan ak noonoo ak noonoo noonoo noonoon te bu leen ko def wa na ngeen ragal yàlla inna allaha nak yàlla sadidul iqab akat tar mbugal xalallahu taala xurimat aleykumul maytatu wa damu wa lahmul hinzir wa ma uhilla li xayrillaahi bihi suñ borom tabarak wa taala nee na xurimat araamal na aleykum ci yéen ñun almaytatu médd wa damm ak deret comme noonu woo yahut daan def jël benn euh, benn xar walla dara takk ko ca kaw jam ko muy génne deret ji noonu di wàcce rek ba siit ñu ñu wax di wax ay fen yu ne naan nangam lay jariñ ak nangam déedéet wa damm wa laxmul xinsiir ak yàppu mbaam wa ma uhilla ak lu ñu rey li xayrillaahi te woowuñ sa turu yàlla bii ca lool lu mën a doon bu ñuy rey dañ naan bismillah allahu akbar xaasa min wa walakka lii ci yow lu jóge delloo naa la ko bu dul loolu kon wal mun xaani xaatu wal mun xaani xaatu euh, wal mun xaani xaatu maanaam xar wala nag wala lu doon bet daal bu nga xam ne dañ ko assommé maanaam dóor ko kuur rek ci bopp bi rek mu dee xaraam na pour jullit waaw wal mawxuusatu wal mawxuusatu bi nga xamee ne bi dafa nekk ca montagne ba wala ca etaas ba dal di daanu wal mawxuusatu dal di daanu chute boobu dal ko rey booba daganul wal mutadarriyaatu wal mutaradiyatu waaw wal mu ta radiyatu boobu itam nga xam ne moom euh, benn moroomam moo xam euh, aw am xar ni moom moo ko dóor mbëkkëre moo ko moo ko jam moo ko jam benn korne rek jam ba mu ko jam rey ko ca kooka duñ ko lekk xaram na waaw wannaate xaatu ak boo xamee dañ ko étouffé nag maanaam xam nga am na bu nga xam ne dañ ko dóor kuur mi biir dañ ko étouffé noj ka rek ba mu étouffé ba dee hmm? wannaate xaatu wa ma ak wa ma akkala sabu'u ilaa ma sakaytum wa ma akkala ak ba nga xam ne sabu da ko maanaam benn mu mel ni benn bête féroce moo ñëw rek euh, matt ko rek xàmp ca jël ca lëf un bête féroce bu nga xam ne dafay dévorer waaw foofu nag fii am na prix maanaam mu mel ni comme boo gisoon nag wu rëy walla rek gaynde sëb song ko nga songo gaynde gi mu daw waaye la mu ca cof yóbbu la mu sa ŋànk yóbbu ko moom deewagul ilaa ma zakaytum yow nga rendi ko nga rendi ko lekk man ngeen koo lekk mhm, ilaa ma zakaytum loola nag man ngeen koo lekk waaye bu dul loolu bu fekkee rey na ko ba pare ba mu xëm walla yooyu daganatul pour yow waaw gis nga rab am na ci rab yu nga xam ne dana dana dana étouffé ba mu dee noonu yooyu yëpp alxuraan bàyyiwu ci dara wa ma subiha ak la nga xam ne dañ koo rey ala nusub bi la tax ñu rey ko mooy ay xërëm wan tas taqsimu ñu koy seddale bil aslaami ci seen barabu ndëpp ya wala moo xam seen xàmba ya wala fu mën a doon loola nag fii damay taxaw fii tuuti nag ndax fii yàlla daf ne zaalikum loolu fisq fisq bii nag foog ñu xool ko fisq lépp ci nekk lu bon fétiche yu bon ya yépp mu ngi fii ñu taxaw tuuti qaala allahu taala zalika fisq fisq bi boo gisee ma taxawoon du dugg sarxa bi du xoolaat yent bi def si wax lu baree baree bari parce que baatu fisq ay waay jàpp leen ko waaye fisq rek fisq euh, c'est la perversité pour, pour les, les, francophones c'est la perversité et dafa ngand dafa yaatu fisq yàlla ne baatu olof fisq ak a bon ak a yées di nga gis benn waay bu nga xam ne jàmbaar la góor jàmbaar la day ndam yor famille am wala jàmbaar la waaye ñu ne ko li wàññiwul dara fétiche bal de waaj nen ñu boo fa laaloon bu la jëlalee eh, boo ko joxew béy mu defal la ko nii wala mu yóbbu ko si groupe si si si guyu gële wala nangam bu ñu bindoon sa wala nangam nangam ñu ne ah loolu de garaawul ku feebar mën naa fejoo yi nangam ay fenni kese fisq laa ilaha illallah muhammadu rasulullah salaa sallam naa dem sax parce que bu toogee fii si sarxa bii di wax si affaire bi ak xeen gi sax xam ku luy fétiche ak xeeb gi ma leen xeeb dans nopi parce que buma buma bu fi ci sarha bi du xol te ay alcorane yi mu ngi ñëw mu ngi ñëw ci kanam yàlla amna fu mu leen di waxe Muhammad de déwee leen ne leen ñom ñep nañ ñëw sax dajeeg yow fal waaw na continuer waaw zalik zalikum fisq ak bon yàlla nak fi mu wax ni al yawm ma bés ni ki tay ya isa ya isa desespérer na yay sa jàq na allazina kafaru yéefar yi min diinikum si seen diine ji bu yàgg defoon nañ ne mën nañ ñu yàq seen diine mais léegi dañu désespéré léegi nag comme lii am na fala tax sawhum bu leen leen ragal mukk bu leen ragal kat yi bu la gën menace menace ñi menacé bu leen ragal bokkaalekat yàlla yi bu leen leen faale waayu fala tax sawhum bu leen leen ragal wax saw nii ragal leen ma man dong gannaaw dikk tey yonent bi dal di jàng nag ndeysaan signature bi fii nag ci mbi ca ca arafat ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam fa la jàng fa la jàng nag fa la jàng nag lii muy bëgg a jàng moo tax foog ma beral ko mbiram taala baa ngay def discours ca arafat mu ne al yow ma bés ni ki tey ak maltu ak ak maltu mat na mat na lakkum ñe leen diinukum seen diine wa at mamtu wa at mamtu baatu baat bi maanaam la waroon a manqué lépp mottalaku na aleykum pour yéen nihmati yi waat mamtu matal naa aleykum ci yéen nihmati sama xéewal maanaam islaam bii ma leen jox mooy xéewal dëgg dëgg dëgg dëgg war a diitu tànn naa man yàlla lakum ñeel leen al islaam islaam diinan mooy diine fii nag ngay gise ni may daat beneen affaire la déggal bi mu waxee lii ba pare la mu ca teg automatiquement mu ne faman iddu tura gannaaw bi ñu waxee lañu araamal yépp nag fa man udd tura ku loru ku nekk dans le dans les contraintes fi maxmasatin ci xiif walla sonn wala yi demee noonu xayra mu ta jaani finta féttéerloog désobéissance à taxul nga def ko lil ismi jëm ci bàkkaar fa inna allaha yàlla xafurum jéggalaakoon la rahim boroom yërmande la dana ko gën a leeral ba mu gën a teel leer ci kanam waaw ya tax ngay lekk yëleeg nangam nangam mais ci baat bi boo cemee fa man iddu tura fii max fii max masatin xayra mutajaanifin lil ismi fa inna allaha xafurun yàlla moo bari yërmande yàlla nañu yàlla jéggal bàkkaar yépp li paase ak li ñuy def ak li ñëwagul yépp mu boole ñu jéggal barakatil quraan yi nag qaala allahu taala yàllaa ngi wax seydina muhammad salaa sallam yasalunaka gaa yi ngi lay laaj ci de waxtaan nañu fële seen biir la nga leen wax yëpp dégg nañu ko waaye ñu ngay ñëw ñu ngi la lay ñëw yasalunaka ñu ngi lay laaj se maa ñu ngi lay laaj ñu ngi ñëw di la laaj di la laaj yasalunaka ñu ngi lay laaj ñu ngi ñëw di la laaj si maaza uhilla lahum lan nga leen daganalal nag lan nga leen daganalal gannaaw bi nga waxee yi araam ba pare xul bu ñu yëg bu ñu see rek balaa ñuy wax sax tontu leen ñu xam ne man maay wax ak yow xul ne leen uxi la dagal na lakkum ñeel leen tayyibaatu yi nga xam ne dañoo teey tabaax baax wa maa allamtum ak la nga xamee ne yéen minal jawaarihi yéen a ko jàngal seen xaj ya wala seen mafia wala seen genre aigle waa ma allamtum minal minal jawaarihi ñi nga jàngal rëbb mu kalli bii yow dangay wax ak moom di ko jàngal mu kalli bii na xaj bi da ngay wax ak moom ba day xam nooy wax ak moom tu na nga di leen jàngal mimma allamakumullahu ni leen yàlla jàngale noonu nga war a jàngale rëbb xaj buy rëbb wala maf buy rëbb noonu nag boo ko jàngalee ba nga xam ne moom min na du yàq parce que bu day day day day day dab bu dabee njombar li wala dara da koy jaxase jaxase jaxase ba tee ko maîtrise ko waaye du ko du du du ko étouffer du ko du ko matt foo xam ne du dagan si yow ba ba nga yëg si yow rendil ko sa bopp defar ko génn butil yaag yam moom ak yëpp sànni ko yenn ya, ya nga xam nit mën na koo lekk waaye moom ko lekk jox ko la nga cay jël nga jël ko yow bu boobaa nag loolu fakkuloo lekk leen booy ren nag boobaa neel bismillah fakkuloo lekk leen même maa am sag na salamu jàpp aleykum pour yéen waskuroo na nga tudd nag ismallahi tur yàlla alayhi ca loola bismillah booy ren wa taqullah na ragal yàlla inna allah naka yàlla sariwul xisaab ak a gaaw ci régler ay mbir qaala allahu taala al yawma bés ni ki tey uhilla daganal naa lakum ñeel leen tayyibaatu yu teey yi te baax tayyibaatu wa taamul la si na utul kitaaba ñamu gaa yi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon teeroon ay téere xillul lakum dagan nañu bu ñu toggee man ngeen koo lekk muy yahud wala nasaara ndax dañuy rendi xam nañu luy loolu am nañu tawreet ak linjiil ak saboor kay furqaan wa taamukum seenu lekk yéen xillun lahum dagoon na si ñoom pour ñu lekk ko wal muxsanaatu ñi nga xam ne dañoo ñongu jigéen ñu dul mooy yàlla te set te baax minal muminaati si si way gëm yi di ay jullit ñooña wal mux ñooñu man ngeen leen a takk yéen jullit yi wal muxsanaatu jigéen ñi sell te ñoŋal seen bopp minal la seen utul kitaab si ñi leen fi jiitu woon yahuud ak nasaraan min qablikum bu jëkk ñoom it man ngaa takk ci ñoom waaw soo xoolee ne kii daal ku ku ku ku ku la dafa sàmm boppam isa atetumuhunna soo leen joxee seenug can na seenug can niina xayra musaafihin ku nga xam dafa sell te set lañu wax waxuñu ko xamee ne kii day nekk ay farantu da da da da euh, euh, maanaam affaire ah, affaire la may bañ tudd xam ngeen ko waaw wala mu taxisi ah daan waxuñu mu nekk maanaam comme concubinage euh, wala farantu déedéet hmm? waman yakfur ku weddi bil iman ci ngëm faqat xabita màbba nga amaluhu sa jëf wa yow fil axirati يوم الخيام من الخاسرين أجي بيرتنا la اللهم ربنا تقبل منا إنك innaka samiu duwa وتب علينا وتب علينا يا مولاي انك تواب رحيم اللهم ربنا تقبل منا انك السميع الدعاء وتب علينا يا مولاي انك تواب رحيم واغفرنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على نبينا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وخادمه